alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayyidil mursalin wa taabi'in la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim hasbunallahu wa ni'mal wakil assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu mbokk jullit di nuyu jullit di lislaam di ñaan suñu yàlla suñu boroom mu wàcc yërmandeem ak ak njéggalam ci ñun ñu dee siwaat ci suñu jotaayu yóbbulum ndaw ñi comme niñ ko baaxoo defee muy jotaayu xam-xam di jotaayu am solo mu mel ni dañuy tàmbali ci suñu jotaayu tey téere bii ñuy wax al jawharun nafis muy di téere bu am solo aljawharu nafis nag sëriñ bi mi ko taalif ci téere bi ñuy wax al ahdariyu lahdariyu boobu nag nekk na téere bu ràññiku boo xam te ni ci jamono yi jàll mooy jamono yu weesu jamono yu mag ñi daan nañ ko fonk loolu ci tàmbalee ko ak jàng mu téere bu am solo boo xam te ku ñuy wax Abdurrahman al Akhdari moo ko def sëriñ bi jël ko nag taalif ko def ko ay woy yoo xam te ni dina jàppale lool ci képp ku ko bëgg a jàng rawatina ku ko bëgg a mokkal mën nga ko mokkal ci mokkal woo xam te ni du ànd ak coono gu bari seen bi yaatal ko yaatal nag ba mu gën a yaatu lool daal di koy leeral ak a ba mu gën a leer lool tamit comme ni ko baaxoo defee ci téere yu bari muy téere boo xam te ni tàmbali tàmbalima bi indi nañ ci ay dénkaane yu bari yoo xam te ni boo ko doon lim mën nga ak juróom wala ko ëpp mu am fukki dénkaane ak ñett yoo xam te ni def ko dénk bépp mu kallaf mu xam ko te jëfe ko ak yeneen dénkaane yu bare comme ni ko Laxdari yu indee ba ci bunt bu mujj ba nga xam ne dafa jàngale bunt bu ñuy wax baabu saani lépp sërit bi indi ko ci téere bii ñuy wax aljawharun nafis baabu saani nag bunt la boo xam te nii bu am solo la ci wàllu julli ak li ci aju mu leeral ko leeral boo xam te nii gëstu nañ ne téere xam-xam yu baree bari ni mu indee wàllu julli ak ni ko leeralee gisuñu téere boo xam ne indee na ko noonu kon muy téere bu am solo téere bi nag sëriñ bi ko tàmbalee fii mubaarakul ibtidaai lii lu ñu barkeel ab tàmbaleem la maymuunul intihaai tey luñ barkeela yamukaayam mooy ak matam bismillaahi ci turu yàlla lay tàmbalee may wax arrahmaani yàlla mi aji xewale xewal yi digg yi ci àdduna arrahiimi yàlla mi aji xewale xewal yu ci àllaaxira wasalla yàlla na dolli tedd allahu yàlla ala sayidina ci sunu sang muhammadin muhammad nabiyihi kadi yonente wa alihi ak i ñoñoom wa sahbihi ak i sahabaam wa sallama tam dolli ko musal tasliman ak dolli musal allahumma yow buur bi aslih yàlla nga yëwénal yàlla nga defar ummata muhammadin xeet muhammad salla yàlla nga dolli tedd allahu yàlla alayhi ci moom wa sallama tam dolli ko musal allahumma yow buur bi farrij yàlla nga wuññi njàqare yàlla nga dindi aw tiis an ummati muhammadin ci xeetu muhammad salla yàlla nga dolli tedd allahu yàlla alayhi ci moom wasallama tam dolli ko wóolu mu mel ni sëriñ bi dafa tàmbalee téere bi ci ñaan suñu boroom def tàmbalimaa téere bi barke def ko ci jeexal bi tamit mu am barke mu tàmbalee ci baatu bismillahi rahmaani rahim muy baat boo xam te ni mi ngi firi ne maa ngi tàmbalee ci yàlla samay wax ak lépp lu may def yàlla mi nga xam te ni moo yërëm lépp lu bind ci yërmande ju yaatu yi nga xam ne ci la yërëmee ñëpp ci defalee ñëpp xéwal yoo xamee ne xoola ci ku ko gëm ak ku ko weddi ni nga xamee noonu lay defalee koo xam te ni daf koo weddi di ko moy xéwal yoo xam ne defalu ko ku ko gëm loolu lépp mi ngi aju ci yërmandeem ju yaatu waaye mi ngi def arrahimi muy yërmande joo xam te ni tamit dafa am ñenn ñoo xam te ñoom rek la ko jagleel ëllëg yowmal xiyaam muy ñi nga xam ni dañ koo gëman topp ci ay ndigalam wattani ay tereem ba am ngërëmam ñooñu la ko suñu borom jagleel mu yërmande joo xam te ni ñi gëm rek ñoo ko moom mu julli ci yonente bi ñaanal yonente bi suñu borom dolli tamit ay saxaabaam moo ñim àndalan ñaanal waa këram waaye mu ñaanal xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa suñu borom yéwénal seen mbir yépp dellu ñaanalaat xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam suñu dindi bépp xeetu njàqare bépp xeetu tiis ci njabootu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne allahumma yow buur bi irham yàlla nga yërëm ummata muhammadin xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam awnuka danañu sàkku ndimbal yaa muxiinu yow aji dimbalikoo ji mooy suñu boroom wa bika ci yow nastaxiinu lañuy sàkkoo ndimbal laa xawla déet benn xeetu pexe bu def ba du mooy yàlla wala quwwata amul benn kàttan bu nit mën am ba topp yàlla illaa billaahi ci dudut yàlla nam ko alxaliyu yàlla mi aji kawe alazim yàlla mi aji màgg asbuna doy nañu allahu yàlla wa nixma te baax na alwakiiru yàlla mi ñu wakiiru mu dellu ñaanal yonente bi sallallahu alayhi wa ak waa ak ak njabootam ak ñi ànd nag moom mooy saxaaba waaye dellu ñaanalaat njabootu bi bi sallallahu alayhi wa sallam muy aw xeetam wépp yërmande yàlla wàcc ci ñoom waaye mu wax ne suñ boroom ci yow rek lañuy sàkkoo ndimbal yow mi nga xam ni képp ku ku am ndimbal rek yaa ko dimbali ñu ngi sàkku ci yow ndimbal te ci yow rek lañuy sàkkoo ak dimbalikoo waaye doomu aadama amul benn xeetu kàttan walla benn xeetu pexe bu mu mën a def ba nga xam te ni dina jaamu yàlla topp ko nam ware wala mu fexe ba du moy yàlla amul benn xeet pexe wala benn xeetu kàttan bu mu ko mën lu dut yàlla daf koo kàttanu yàlla rek moo ko man mu nekkoon yàlla doy nañu te yàlla moom mi kat mooy ki nga xam te ni képp ku wéeru ci moom moo jara wéeru te képp ku wéeru ci moom wéeru nga ci ki nga xam ni boo wéeroo ci moom dina la aar te moom mooy ki jara wéeru kon ñi ngi doyloo yàlla te wéeru ci moom kon loolu mooy nekk bunt bi njëkk ci téere bi muy téere bi ñuy wax na nafis sëriñ bi tàmbalee ko noonu waaye nag ñu dolli ci lu am solo loo xam te sëriñ bi daf boo xoolee daf koo indi ci biir bind yi muy loo xam ni jullit bu nekk war na koo dénk boppam di faral di bari lu mu koy tudd ci aw làmmiñam muy baat yu am solo yoo xam te ni amul góor amul jigéen baat la yu jàppandi mooy yu yomb yoo xam te ni góor mën na koo jariñoo lool jigéen tamit mën na koo jariñoo lool muy baat yu bari ay njariñ lool ci yàlla ba ca njëkk mi ngi tàmbalee ci bismillahi rahmaani rahim bismillahi rahmaani rahim de lu jara balit la kon jullit bu nekk war na koo fonk lool farlu ci bis bu nekk bu yore kursam mu fexe cee def lu mat téeméer sax baax na rawatina julli ci yonente bi sallallahu mooy salaatu ala nabi lu jàppandi la lool te bokk na ci lii tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sopp la muy di faral di julli ci yonente bi sallallahu alayhi lu bari moo xam góor rawatina suñu jigéen ñi te loo xam te ni lu jàppandi la ma xëyee suba naa bopp ne dinaa def téeméeri salaatu ala nabi lu yomb la te lu diis la lu am tiyaaba ëllëg yamal xiyaam salaatu ala nabi nag lu bare ay façon la waaye nag lu mën a jàppandi la allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim lu am solo la te lu diis la sallallahu alayhi wa sallim wa lu am solo la kon yooyu yëpp ay xeetu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa yu baree bari waaye bokk na ci tamit di faral di jéggalu yàlla di wax astaxfirullah alazim allazi laa ilaha illa huwa ay xayum lu am solo jullit bu nekk war naa di ko faral di def kon ñu ngi koy dénk suñu bopp di ko dénk di ko dénk bépp mbokk jullit ndax am solo gi mu am solo tax na sax bépp wérd boo gis moo xam wérdu murit la moo xam wérdu tijaan la moo xam beneen wérd la boo xoolee ci biir nga gis ñu indi ci ñu andi ca biir wér ci biir wérdu woowee mooy baat yi may wax mooy astaxfirullah alxasimu allazi laa ilaha illa huwa alxayyul xayyum ndax lu am solo kon baat la yoo xam te nii jar na di wéet jàpp ba sell sa digganteeg sa borom dong nga wéet ak moom fas ci sa xol jublu penku yor sa kurus wala loo man di yor ngiy wérd baat yii di jéggalu yàlla di di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa képp ku koy def kat suñu borom dina la dimbali dina la kàttanal dina la musal ci ay pexe yu bari kon loolu ñu ngi koy dénk suñu bopp di ko dénk bépp mbokk jullit kon lii mooy bunt bi njëkk ci téere bii ñuy wax al jawharun nafis kon ñu ngi ñaan suñu borom ni sëriñ bi ñaanee tàmbali maa nekk barke jeexalaay bi tamit nekk barke suñu moom defal ñu ko ci suñu dund suñu dund gi yëpp nekk barke ñu ngi dellu di santaat mbokk yi nga xam te ni dañuy teewlu jotaay bi di leen sant bu baax te di leen ñaanal suñu dolli leen ak kàttan kàttan dolli leen ak ndimbal suñu defal ñu dégg ak topp kon dañuy wàcce jotaay bi di jox dig daje beneen jotaay bii di ñëw incha allah rabbi ci téere bii ñuy wax al jawharun nafiis kon lu fi jub ci yàlla lu fi dëng ci suñu jëmm yu xeeb yii la in uridu illa al islaaha mastataxtu ma tawfiqiya illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh